Hallelujah. bisimilahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ñuy seetaan rajo Touba Zingonia ñu ngi fii ci euh, fi nga xam ne mooy waañ wi nga xam ne fi la Euh, groupe organisation bi nga xam ne ñoom ñooy waajal xéewali saa boo xam ne niñ ko defe woon ci màggal gi tey jii ni ngeen ko gisee nii nii koy a bëgg saa bu na loolu kon ñu ngi ànd ak seen njiit mooy sëriñ gi nga xam ne moom la ñuy màggalal nabi sallallahu alayhi wa sallam ni fas yéene defewaat ci gàmm gi mooy fépp fu nit ñi ne ngeen fekk leen fa ak xéewal jox leen li nga xam xam mom moom la te ba tax na kon ñi ngi lay ziar ci gàmmu gi da la baye ngay ziar nit ñi ak di leen wax no nga xam non ngeen jotta organiser tay wa assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh yeen mbokk julit yi mbokk talibé ñi ngi leen di ziar yeen ñep te di leen magal di leen ñoké delo njukkal ci bis bi di leen xamal ne tam fi dal mom fi lañ ne mom di toppatoo xewal yi jëm ci gamu comme niñ ko defoon ci bisub Sëriñ touba bi tay tam comme Sëriñ touba mom dañewon bu buñ ci magal gi rek nañ djublu ci gamu gi biñ ci joggé dañ ko wajjal ndax démb lañ tambali won sax ay sun borom dafa dogal ni bi ngeen danaka matal nañ ndax añ bi lañuy wajja waaj a defar nii ngir yobbu ko daara ja xewal itam reer itam mi ngi ni momit dal soxna yi ñu and ko daayira maam jaara bi ak góor yalla yi tout tank yi ñu andal sëñ Moussa fa la ni euh ak sëñ Moussa Ndaw mu sëñ mo job maam tierno Sall euh abdourahman ñom mortala ndjay me Modou ndjay fara Fallou Sow Xaadim ñoom sëñ Xaadim Ndiaye euh, Ousseynou Ndoye ñun tuutànk ak ñu tuutànk yi ñuy àndal daal lii daal mooy équipe waay am na nag ñu ci màggali Touba ku mel ni sëñ Sëwru Faye ak ñoom Baye Jili Diaga ak ñooñ ñoom dañoo dem Touba màggali waaye ñi ci des moom ñi ngi ni niñ ko taxaw woon màggal gi daal ak daayira Soxna Jaara bi ñoom lañu àndal nii daal taxaw liggéey bi ngir euh, bernde yi comme loolu lañ ñu féetale moom ñi ngi fii daal di liggéeyal Serigne Touba fii jërëjëf sëñ jërëjëf sëñ maam ñu ngi lay sant bu gërëm di leen xamal na rek maanaam ni ngeen gise ñuy liggéey nii sedd bi metti na gis ngeen sedd bi ne mel tey ji fi ne kenn mënu la ko wax bokk na ca bis gën a sedd waaye loolu lépp téewut ñoom ci seen bopp ñi ngi ñëw fii ngépp laanaam Euh, liggéeyal li nga xam mom la señ bi santaane won ne guddik yonante bi nañ koy magal ta'simuhu bi sunnati yaquduna lil janati gi nga xam mom la señ tuba waxon moom a tax moom it tax ñoom it ñu ngi téye buñ jógee ci señ mam góor ni ngeen ko xamé tay soxna yi ñi ngi ti ñomit it kenn ñu dess ñomit ñi ngi ti waañ ñom li nga xam ñoy ñooy defar mi naka ngeen xam ci l'islam diine naka nek jigen dafa mas am walu garam jigen dafa mëna am ab liggéeyam ba tax na kenn ci soxna yi ñi ngi ni tok soxna yi soxna si alaykum <laughs> maaleykum salaam wa rahmatulah. waaw yéen a ngi ñëw fii ci màggal gi guddi gi nga xam ne mooy guddi yonent bi sallallahu alayhi wa ca sedd bi metti na xam nañ ko gis nañ ko waaye teewut it yéen a ngi tiim seen i ndab yéen a ngi tiim seen i di ko liggéey liggéey bi nga xam ne màggal guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu bëggoon it maanaam li nga xam ne da nga ko ci soññ sa mbokki jigéen ñi ndax xam nañ ne ku ne sedd na liggéey metti na waaye teewut yéen it yéen a ngi fii ba tax mu dal gi ñoom it ñu a def ni yéen yenent bi moom lu ci waay def rek sa bopp ko ko defal moo tax duñu yëg sedd duñu yëg metti waaye duñu yëg dara lu dul di sant yenent bi bu baax ndax lu ñu am rek ak fu ñu toll ak lu nu mel rek moomat moo tax kon nag ñu ngi sant bu baax a baax man nag damaa mënta wax looloo tax jot li soxna Asi Thiam. soxna si asalaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay. ziara bu baax a baax ci guddi yonent bi sa sallallahu alayhi wa sallam a ngi fii ci liggéey bi mu xaw a nekk liggéey boo xam ne. bu ngeen ci taxawul xëy na dina mën dem demee waye nak ñi ngi sant bi ngeen ci taxawé bu baaxa baax naka nga ci gisee manam ak naka ngay dundé gudde gi tay waaye ñi ngi leen délo ci yaam lu bari bari gam gam gi mom neex na lool wax deug yalla ñu ngi fi wax deug yalla ci liggéey bi ah, di fasiyene liggéeyal señ bi dal te yalla rek tax nak ngi leen sant leen gëreem dama mane wu wax nak moo tax comme ni ngeen ko gisee ni ngeen ko seen fi nga xamni ñi ngi and ak suñu techniciens yi nga xam ne ñoom itam euh, ngeen liggéey bu baax a baax ci ñoom it li nga xam ne nu ngeen ko gisee fii nii malgré sedd bi nga xam ne moo am na tey jii sedd boo xam ne mi ngi dem ci maanaam bu ñu ko mënee xayma ci moins 5 degré waaye teewul loolu lépp gis ngeen liin ni ñu takkoo ni ñu doxee fas yéene liggéeyal li nga xam ne moo di guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni lañ ko répété ne sëñ Tuubaa daf ko fonkoon daf ko daan gàmm daan ko digle ñu di ko gàmm loolu it moo tax ñi nga xam ne ñun tey jii ba tey ñi ngeen seen yi ñëpp bu ngeen gisee nii fii ñu taxaw fii nga xam ne fii tey sedd na ci liggéey bi ñii ñi ngi nekk fii di jaaru nga xam ne kon sedd bi métt na méttiwaay boo xam ne moo tax lépp loo xam ne léegi maanaam dajas na ko ci gudug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon ngeen xam ne suñu borom subhanahu wa da koo tagg ci jukko na ko wa innaka la ala xuluqin asimun muy guddi goo xam ne maanaam bu ñëwee lépp lu ci waay man dana ko ci fas def sëriñ bi ñu lay ziare Eh, yéen a ngi fii di waajal li nga xam ne mooy xéwal li jëm ci guddi yonte bi sallallahu alayhi wa sallam sedd bi metti na waaye yaakaar naa yonte bi sallallahu alayhi wa sallam jar na lu ëpp loolu kon li nga xam ne maanaam moom ngeen nekk fii ak moom ngeen doon def bu ngeen xëyee ba léegi asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi siyaar mbokki julli yëpp képp koo xam ne ak ñu seetaan rek ñu leen nuy te leen ziar te ziar ñëpp ci guddi gu sell gi ñu jëm di ñaan suñ borom yàlla ñu dajale ci ngërëmu sëñ bi lépp lu ñu jaamu daal suñu borom yàlla nangu ñu ko baax si Muhammad ah tey di wax dëgg ñu ngi fii ci liggéey bi ñu xëy ba léegi ñu ngi fi démb lañ ko commencé woon ca daara ja ànd ko jëw ni ak soxna yi suba ba ñu ngi fi tam fii lañ nekk waaye fi ñu toll daanaka liggéey bi moom lu ci ëpp mat na daanaka waaw fi ñu toll daal lañ toll wax dëgg yàlla jërëngeen jëf ñoom ñi nga xam ne ñooy saytu lu jëm ci wàllu togg mi saytu lu jëm ci wàllu liggéey bi saytu lu jëm ci wàllu xéewal yi nga xam ne euh, nit ñi dañuy solo ba jekk ñëw toog dee nga maanaam xéewlu xéewloo li leen ñooy xéewloo ñoom ñi ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo koy lijjanti ñoo koy saytu ñoom koy jot kon nag fay gi nga xam ne suñ borom da ko cee diglee ci ku màggal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko suñ Tuubaa waxee ci ku màggal yonente bi sa alayhi wa da nga tàggoog ay bakkaar ni mu waxee ne ku màggal guddi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dontale bi sukkarin aw laxamin la ko wax doon loolu la wax waaye ñoom ñi ngi ci lu ëpp ci bi sukkarin aw laxamin ndax taaj nañ seen ay mbana ñi ngi togg seen ay cin togg nañ añ yi ba noppi fas yéene bu ci noppi jublu ci reer yi kon mooy loolu li nga xam ne moom li nga xam ne moom lañ ñëwoon fii ngir ni ñu koy fàttali seen rajo Touba Zingonia moom nga xam ne dafay liggéeyal rek ngir lu jëm ci sëñ Touba liggéeyal ngir maanaam sëñ Touba ni ko sëñ Murtada waxe woon ne maanaam sëñ bi moom kër l'islam rek la yor comme kër l'islam la ko yor dañuy fas yéene fépp foo xam gaaw dañ ci ànd ak yéen ba lépp loo xam ne maanaam moo fa mën di xew ci guddi ak ci bëccëg muy ca Sénégal muy ci fii it fas yéene ànd ak ñi nga xam ne mooy suñu mbokk ya nekk Sénégal suñu correspondance yi di leen jubtal lépp loo xam ne moo xew fii kon en attendant léegi maanaam li ñuy dem ci guddi gi nga xam ne lii mooy waañ wi nga xam ne moom lañ leen doon won ci nga xam ne moom lañ nekkoon fii ci doon toog wasalaamaaleykum la la la la ha la la la لا إله إلا لا إله إلا لا إله إلا لا إله la ilaha